bisimilah waa groupe xibaar yi yéen ñëpp ñu ngi leen di saare groupe xibaar yi ñu ngi nii buntu kër Ousmane Sonko comme na ma leen ko waxee woon bu ci guddi bu Ousmane Sonko woote ma dem pare naa pour dem maa ngi nii ci buntu kër gi di xaar ñu ngi xaar nag police yi ñu waxoon ne ñoom dañoo convoqué Ousmane Sonko Ousmane Sonko ne leen bu ngeen bëggee ma ñëw jaar leen assemblée su ngeen ko defee ma ñëw mais man du ma du ma jalgati ñu ngi ko waxoon la toog nag di leen xaar ñun ñëpp ñu ngi n buntu këram toog waaw force de sécurité yaa ngi nii ñu ngi nii buntu kër Ousmane Sonko di xaar gaay ba xam ndax danañ ñëw jëm ko jël wala déet bu fekkee ne ñëw nañ jëm ko jël ci kaw mboolo mi la ñuy jaar yéen a ngi gis mboolo mi yéen a ngi gis mboolo mi yéen a ngi gis mboolo mi a ngi gis ñi ñëpp ngi nii ñi ngi buntu kër Ousmane Sonko di xaar gaay su fekkee danañ ñëw pour jël si Ousmane Sonko comme na ma leen ko waxoon ci groupe de démb bis na ngi tey bokk naa ci Sonko te mu ñu woote ma dem ci noonu laa ko waxoon noonu laa koy defee bàyyi naa sama liggéey bàyyi sama lépp lii laa leen doon may yéen waa groupe xibaar yi ñu ngi nii buntu kan Ousmane Sonko mu jaral ñu lu ne nag jaral nañu lu ne ndax Ousmane sonk lañ xool ne moo mën a jubbanti réew mi moo man a jooyanti réew mi réew maa ngi diig gaal gaa ngi diig usmaan sonk mooy ñëw tur yi fi nekk mu fatt ko pour gaal gi mën a joow jàll loolu lañ bëgg ñun ñëpp ñu ngi nii taxaw sécurité yaa ngi nii ci buntu kër gaa ngi nii waaw soo buntu kër gaa ngi nii gaa yaa ngi nii taxaw ñëpp a ku ñëw fii bàyyi da nga gis lu mel ni xeme maa la wax léegi ñëpp a ngi nii taxaw gars yi ñun ñëpp te ñun ñëpp a cay bokk nag ñun ñëpp kenn du arrière waaw Sénégal Ousmane Sonko lañ ci yaakaar pour mu defar ko Ousmane Sonko lañ wóolu ñun usmaan Sonko lañ bëgg bëgguñu kenn ku mooy Ousmane Sonko moom lañ yaakaar. moom lañ bëgg moom lañ gis gisuñu kenn bëgguñu kenn yaakaaruñu kenn Ousmane Sonko moo mën a taxaw jubbante Sénégal système bi lañ war a changé ñëw leen ñu changé système bi waa adduna waa Sénégal ñëw leen ñu changé système bi li fi nekk 1960 ba léegi dara doxu ci dara baaxu ci Ousmane Sonko ngi wax guddi mu ngi wax bëccëg ngir yàlla dégg leen li mooy wax seen i déglu leen Ousmane Sonko li mooy wax waaw ñëw leen ñu ngi nii buntu kër gi di xaar lépp nag lépp la ñuy xaar ñun pare nañ lépp pare nañ pour lépp dawuñu dara dawuñu daayuñu ragaluñu ñu ngi jógee fu sori ñëw fii di daan suñ doole waaw xoolal Ousmane Sonko lañ bëgg tey moom lañ bëgg suba na ñëpp ñëw bu kenn des waaw ñu ngi nii ci buntu kër gi xaar gaay ñu ñëw bu ñëw ñu jànkuwante ak ñëw jaamarloo ak ñoom ba mu neex amul lenn lu ñuy ragal waaw waaw déglu leen ah dama leen di jox benn parce que le commissaire de police. le commissaire de police bi mu ñëwee il appelé. mu ne ma parler en responsable te gis naa la. dama leen di wax li leen wax. li ma wax ma wax leen ko. nee na ñoom ils sont venus pour constater et repartir. maintenant non ma ne waaw xoolal gis nga xoolal ba léegi fii fii nii fii nii yëpp ñu ni neen la ñu ni neen la te olof yi dañ ne ku ñu jépp duñ jéppante buñ fi nekk dindi ay frustration suñu biir parce que tey ku dul jàmbaar doo fi taxaw comme loolu dafa am nag ñun dañ leen wane li mat sëkk mooy discipline détermination ak patience fii ba at bu ñu ñëwee ñu ngi fii

dictateur Macky Sall dictateur Macky Sall dictateur Macky oh, Sall dictateur Macky Sall dictateur Macky Sall dictateur waaw waaw ñu ngi nii buntu kër Sonko ñu ngi nii buntu kër Sonko waaw fii moom gars yi la ñuy xaar rek bu ñu ñëwee duñ am fuñ jaar dugg waaw bu ñu ñëwee ñu dal seen kaw amul benn problème Sonko rek. teg ko ci yoon wa ilaa bouclier baa fi dem ba jeexan forte résistance voilà merci beaucoup c'est la résistance daanu woon téléphone bi dafa daanu woon. voilà gis ngeen am na ñu bëri ñoo xam ne jamono ji nag ñu ngi nii nag cité kër góor gi gis nga ni auto police gis nga ni mi ngi nii nag ah, wax dëgg yàlla ba nga gis nga ni ah, ñu ngi nii nag léegi ñu jàkkaarloog buntu kër Sonko ah, comme nag nu ma leen ko waxee woon incha allah dañuy nekk fii nag xool lépp nag loo xam ni dina fi xew bon nag jamono ji ñu ngi cité kër góor gi buntu kër Sonko bon nag le belles images les informations réelles claires a nettes Astou Diène dinaa ci gën a ñëw gën ci xuus jàll bon nag comme nu ma leen ko waxee woon na Paco dina leen wan lépp nag loo xam ni dina fi xew incha allah l'iPhone. xam nga policier déjà bu dee bu dee ñoom jàmm moo leen fi indi. arsenal bu ñu indi nii war nañu ko indi. waaw loolu tamit dëgg la. Ah, bon nag jamono ji nag ñu ngi nii nag buntu kër Sonko gis nga ni nit ñaa ngi nii ah, bon nag chaque jour la waxoon naa leen ni pour les informations réelles ah, dañ ciy gën a ñëw ak Paco bon nag gis nga ni am na kuy commentaire ñu déglu ko rapidement. moom dispersé parce que Covid moo tax waruñu tege. moo tax waaw mais gisoon nañu rassemblement rassemblement yu bëre yi nga xam ne. Euh, à commencer par le chef de l'État sama ko def diaspora la a diaspora la ne mais du du nii la ñuy tasee pour man dañuy du nii la ñuy ah, nag bon xam nga moo taxawee noonu.